asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel di leen balu aq di leen baal àq ci bis bu tedd bi ak ci waxtu bu tedd bi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan yàlla mu defal nu xéewal musal nu may nu ak mujj gu rafet di dellu di tàllal suñuy loxo ñaan ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu yàggal fi sunu kilifa gu baax gi lool te may ko wér-gi-yaram gu mat sëkk ak tal gu mat sëkk ba mot li mboolem yéene yi nga xam ne am na ko ci diine ji am na ko ci yoon wi te nu ànd ko ak moom sunu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmale rek ci tolluwaay bi ñu toll ci bis yu mag yi nga xam ne ci la ñu nekk muy fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski muy fukki fan yoo xam ne dafa am gëne lool loo xam ne da koo jagoo amit ay jëf yoo xam ne dañu ko sàkku nu war ko cee jëfee kon nu war koo xam gëneel la war a xam yan sàkku ñu jëf ko ci itam ngir ñu mën caa màngee la nga xam ne moom lañ ci digge xam na ne sunu borom tabaraka wa taala moo bind jamono yépp moo bind barab yépp moo bind nit ñëpp itam waaye da cee tànn yenn barab ak yenn jamono ak yenn nit gënal leen def ci ñoom loo xam ne defu ko ci yeneen jamono yo ak yeneen barab yi ak yeneen nit ñi ngir loolu lim ci jublu mooy eh, gënal gim gënal bis yooyu tànn ko ci bis yi dafa bëgg soññu nit ñi ñu dolli seen pëstéef ca lañ amoon dolli seenu dogu njëkkante ci yiw yi nga xam ne yàlla lëm na ko ci biir bis yooyu dàkk ci it yërmande yàlla yi nga xam ne léeg-léeg daf koy gaaral ci ay bis di ko gaaral ci ay jamono comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee utlubul xayra dahrakum kulla wa taaradu li nafaxaati rahmati rabbikum fa inna lillahi nafaxaatin min rahmatihi yusibu biha man yashaau min ibaadihi wasalu allah an yastura awraatikum wa an yu amin rawaatikum yonte bi sallallahu alayhi wasallam addis boobu da ciy wax ne na ngeen di sàkku aw yiw jamono yu nekk jamono yu nekk rek na di sàkk aw yiw waaye na ngeen di dàkk nag bis yi walla jamono yi nga xam ne sunu boroom da ciy gën a wàcce yërmandeem ay nafaxaatam wàcce ci yërmandeem ndax yooyee muy wàcce kat ku ko dàkk da nga ca jot loo xam ne yàlla mën na la caa sutural àdduna ak alaaxira bokk na ci jamono yooyu nga xam ne nag moom la suñu borom tànn def ca lum deful ci yeneen bis yi wala yeneen jamono yi mooy fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski mooy fukki fan yu màgg fukki fan yu rëy fukki fan yu tedd see lay seere ci teraanga jaga ak ngëneel yam am bokk na ca rek sunu borom tabaraka wa taala ci alquranul karim giñ na ci bis yooyu fukki fan fukki fan yooyu jëkk ci weeru tabaski suñ moroom giñ na ci suñu borom tabaraka wa taala moo bind bindeef yépp bu ci tànnee yenn bindéef di giñ ci ñoom ngir seen tedd nga ak ngir eh, yee ci nit ñi ba nga xam ne danañ xam màgg gi màgg ak rëy gim rëy moo tax suñu borom wax ne wal fajri wa layaalin ashr kon giñ na ci jamono muy fajr waaye giñ na ci layaalin ashr muy ay bis kon nag la muy tekki mooy seenu rëy ak seenu tedd ak seenu màgg bokk na ci li koy seer it màgg gi màgg moom fukki fan yii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo waxal boppam ne mooy fukki fan yi gën ci àdduna jëfal ci yàlla moo ko gënal jëfal ko ci beneen bis bu dul moom jëfal ci yàlla yiw aw yiw wala jëf ju baax moo ko gënal jëfal ko ci beneen bis bu dul boobu maa min ayaamin al amalu saalixu fihinna ahabu ila allahi min hadihi al ayaami al ashr ya qaalu ya rasulallah wala aljihaadu fi sabilillah qaala wala aljihaadu fi sabilillah illa rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarji min dalika bi shay amul kenn ku defal yàlla ci yiw wu baax nga defal kooko ci benn bis bu ko gënal nga defal kooko ci fukki fan yii ñu toll ñu ne ko ba ci jihaad sax nag moo ko gën mu ne leen ba ci jihaad sax looloo ko gën xanaa waajoo xam ne dafa dem jihaati yóbbu bakkanam yóbbu alalam te indiwaatul dara kooku day moom xëy na moom la ñuy tollaleeg ku jëf-jëf ju uh, baax ci fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci weeru tabaski kon loolu di lu màgg lu rëy loo xam ne ñun ñëpp war nañ koo xam te màng ko moom yonent bi waxaat na ne maa min ayaamin azamu inda allahi wala ahaba ilayhi min al amali fihinna min hadihi al ashra fa aksiru fihinna min altahlili wa takbir yonent bi waxaat na amul benn bis bu gën a màgg ca yàlla yàlla gën koo sopp ko ci defal dara ci fukki fan yii kon bu dikkee na ngeen ci bari lu ngeen di wax laa ilaha illallah bari lu ngeen di wax allahu akbar bari lu ngeen di wax alhamdulillah loolu wone na kon ne bis yooyu bis yu màgg la yonent bi moo ko seereel boppam ne mooy fukki fan yi gën ci bis yi bokk na ci li wone ngëneelam it mooy ci la bisu arafa nekk bisu arafa muy juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski nga xam ne am na ngëneel lu rëy alxajul akbar moo mooy bis bi nga xam ne fukki fan yooyu li muy tedd tedd nag bis boobu moo gën a tedd ci fukki fan yooyu maa min yawmin aktharu min an yatiqa allahu fihi abdan min annaar min yawmi arafa wa innahu la yadnu thumma yubaahi bihim almalaika fa yaquul maa araada haulaai sunu boroom tabaraka wa taala bisub arafa nee na dana ci goreel loo xam ne du ko goreel ci benn bis ci sawara ñu naroon a dem sawara yàlla gindi leen ba tabal leen àjjana bañ leen a tabal sawara ci bis boobu li ci yàlla def du ko def ci beneen bis lim ciy goreel du ko def ci beneen bis mooy bisu arafa boobu nee na bis boobu yàlla day jege yàlla nag jekk xarib bu jege la waaye bu bis boobu dikkee day gën a jege mbindeefam yi nag day gën a jege mbindeefam yi jege ga nga xam ne yayoo na ko ak jege ga nga moom la moom la moom la yayoo muy muy muy jaayu ci malaaka yi di buñ doon wax ci nit ñu ne kuy tiitaru ci malaaka yi di leen wax ne xool leen sama jaam yi xool leen sama jaam yi lan lañ bëgg lu ñu bëgg rek may naa leen ko ndax jéggal naa leen lépp yàlla du puukarewoo ay ay ay ay malaakaam ay nit te jéggalu leen seeni bakkaar eh, eh, jéggal leen seeni ñawteef kon jéggal googu mu leen jéggal ba deseetuñu dara moo tax muy puukarewu ci kanam malaaka yi bokk na ci liy wane ngëneelal bis bi tam ngëneelal fukki fan yii mooy ci la bisub tabaski nekk muy yow mu naxar nga xam ne mooy e, e, moo gën a màgg ci yàlla mooy fukki fan yi moom it bis bi ci gën a màgg ci yàlla mooy bis bu bisu tabaski boobu azamul ayaami indallahi taala yowma naxar summa yowma alqar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bis bi gën a màgg fa yàlla tabaraka wa taala mooy bisu bisu tabaski ak bis ba topp ci moom muy bisu fukki fan ba ak benn muy yowmul xar kon loolu wane na màgg goo xam ne màgg na ko moom bis boobu di bisu tabaski te ci fukki fan yu njëkk yi ci eh, weeru tabaski ci la ci la nekk bokk na ci liy wane ak màggam tam mooy li ci daje ci ay jaamu yàlla dajewul ci beneen yeneen bis yu dul moom yeneen bis dajalewul li daje ci ay jaamu yàlla ci fukki fan yi dajewul ci yenn bis ndax mboolem ponki lislaam yi ak ibaad umul ibaadaat yépp daje na ci zikr daje na ci ndax dañ yàlla dañoo bëgg ko ci tudd yàlla lu bari kon tudd yàlla mi ngi ci dañoo bëgg ku ci julli jullik ayid kon jullik ayid mi ngi ci jullik tabaski dañoo bëgg ko koy woor kon mi ngi ci dañoo bëgg ko ci saraxe kon asakaa ngi ci dañ ci la aj nekk tam ci lañuy ñuy aj kon mboolem ponk yi jaamu yàlla yi dees na ko boolee def ci fukki fan yi des na ko boole màng ci fukki fan yii boroom xam-xam yi nag wax nañ lu bari ci euh, gënale gi ñuy gënale fukki fan yu njëkk yii ci weeru tabaski ak fukki fan yu mujj yi ci weeru ramadan ndax da ngay dem ci yeneen addis ñuy wane ne fukki fan yi mujj ci weeru ramadan moo gën am yeneen addis yu naan fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski moo gën boroom xam-xam yi gën a euh, xerañ nag dañ ne liñ jublu ci loolu mooy fukki fan yi mujj ci weeru ramadan guddi ya ñoo gën yeneen guddi yu dul ñoom guddi ya ndax ca la laylatul xadr nekk fukki fan yooyu ca la laylatul xadr nekk laylatul xadri xayrum min alfi shahr kon guddeem ay guddeem moom fukki fan yu njëkk yi ci yu mujj yi ci weeru ramadaan moo gën yeneen guddi yu moom waaye bis yu yi nekk ci fukki fan yu njëkk yii ci weeru tabaski nag ci bis yi bëccëg bi mooy bis yi gën ci bis yi doonte ne bis yi fukki fan ak euh, fukki fan ci weeru ramadaan nga xam ne kon kii guddi yi la gënee kii bëccëg yi la gëne kii guddi yi la gën a bëccëg yi la gën a kii li tax mu gënee bëcc guddi yi mooy laylatul xadar ci la nekk kii li tax mu gën gënee bëccëg yi mooy ci la bisub euh, arafa nekk ci la bisub tabaski nekk te ñaari bis yu màgg la yoo xam ne euh, lu ngëneel rëy moom la ci sunu borom tabaraka wa wax loolu kon wone na lool ngëneel yi nga xam ne bisi bii euh, wala fukki fan yi am na ko kon nag ñu war koo màng bu baax a baax dañuy faral di wax ne nit ñu jëkk ñi sunu mag ñu jëkk ñi rawewuñu woon nit ñi ay julli yu bari ñu woon leen ay woor yu bari rawewuñu leen ay aj makka yu bari waaye li leen rawe woon mooy dañuy taarut dañuy dañuy dañuy dàkk na yàlla fu mu gën a baree ñu gën ko faa defee fu mu gën a baree rek fu ñu ko gën a yaakaaree rek ñu gën ko faa defee bu ko defee seeni yool day gën a bari ndax am na jamono yoo xam ne boo ci defee benn ñu fay l fukk boo ci defee fukk ñu fay la téeméer la ca yàlla fay kenn xamul nu mu toll loolu ab traite la boo xam ne su ñëwee lu ca waay jaay day gën a bénéfice ba day gën a bari tono la day gën a bari ci beneen bis boo xam ne du bis boobu ñoom nag bis yooyu dañ ko daan dàkk duñ ca xeeb dara lu ñu ca wax rek ne dañ ko ca def bu njikkee ñu sàkk ca loola ba mën caa amee loo xam ne kenn mënu ko amee ci yeneen yeneen bis yi ci des bis yooyu nag bis yu tedd la bis yu rëy la kon dañ cee war a jëf jëf yu rëy war cee jëf ay jëf yu tedd bokk na ci jëf yu rëy ak jëf yu sell yi nga xam ne nag des na ko ci def nga xam ne feddli leen feddli nañ ko ci bëgg nañ ko ci bis yëpp waaye bis yooyu nag dañ ko ci gën a feddli te ay nusuus yu bari ay ay ay texte wala ay yax yu bari ñëw na yu jógee ci alquran ak sunna ak jugee ci nit ñu baax ñi ñuy xemem loo nit ñi di leen ñaax ngir ñuy dakk bis yooyu di di ci profité lu bari ba mën cee defal yàlla loo xam ne eh, mënuñu ko am ci yeneen bis yi ci des bokk na ca bis euh, jëf yooyu nga xam ne danañ ko ci dàkk mooy woor ko asiyaam woor ndax koor dafa nekk lu màgg ci bis yëpp ci jamono yëpp waaye nag ci bis yii ci jamono yii lañ ko gën a sàkku nag rawatina koor gi ñu wax kooru ngatt nga arbaun lam yakun yadaahunna nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñeent ngi nii yoo xam ne yonent bi mus ta teqalikook ñoom mus leen a bàyyi benn jamono yan la muy siyaamu ashura woor bisu fukkeel ci tamxarit musu ko bàyyi wala ashr ak fukki fan ci tabaski maanaam juróom-ñeenti fan ya ci taba ci ci weeru tabaski ak ñetti fan ci weer wu nekk ak ñaari rakkay fajar أشهد أن محمدا رسول الله أشهد sunu laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah محمد رسول الله حي على الصلاه أكبر na ci jëf yu yiw yi nga xam ne gën nañ koo fedd li gën koo xemem ci fukki fan yii muy woor juróom-ñeent yi juróom-ñeent yépp yonent bi mosu koo bàyyi benn yoon woor juróom-ñeent yépp soo amee ngant wala seytaane dab laak sa bànneex ba wóoroo juróom-ñeent it nga fexe ba juróom ba ak juróom-ñeenteel ba moom bu la raw juróom-ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba ndax juróom juróom-ñeenteel ba so yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nee na mooy arafa mooy bisu arafa mu ne siyaamu yowmi arafa axtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati baada nee na woor weer weer bisu arafa maanaam man day day kafaara at ma ko jëkk di kafaara at ma ko mujj at ma ko jëkk ñaari at at ma ku jëkk ak ma ko mujj ku ko woor sellal ko yàlla nangu ko da yàlla dalay faral sa bakkaar ya nga am ci at ma ko jiitu woon yàlla dalay faral sa bakkaar ci at ma ma ca tegu loolu sëñ bi sëñ Tuubaa radiyallaahu taala wax na ko ci masalikul jinaan lim na juróom-ñaari bis yi nga xam ne mooy wër ci at mi te bu dikkee ñu war ca màng war ko euh, woor juróom-ñaari bis yooyee nee na bokk na ca taaun li zil xijjati muy juróom-ñett ñeenti fan ci zil xijja muy bisu arafa waxaa u zil xijjati ak juróom-ñetti fan ci weeru tabaski mu wax ne fa kullu man fii sawmiha yaduumu fa sa yanaalu kulla ma yaruum képp koo xam ne saxal nga woor ko danga am lépp loo xam ne loo loo bëggoon la lépp loo xam ne loo doon sàkku la danga ko am ci sunu borom tabaraka wa taala mu boole ca ne eh, nag wa raxabu fi sardi chahri rajabi wa misluhu muharramin fal tarxabi wa tisu dil hijjati aydan wa kaza jamiu chaban fara il maqasad bokk na ca juróom-ñaari bis yooyu nga xam ne day wër ci at mi mooy juróom fan yi tabaski fan maanaam juróom-ñeenteel ba mooy bisu arafa moo gën a feddali ko waaye woor juróom-ñeent yépp la tàmbulee ca benn ba ba ca juróom-ñeent ya loolu mooy bokk na ci li nga xam ne xemeem nañ ko lool wa raxabu nee war wa raxabu xemem loo nañ ko nit ñi mu ne nag fal tarxa bi xemem ko yow li nga xam ne gaa yu baax yépp xemem moom nañ ko di ko def di ko wut yow it xemem ko nag nañ ko xememoo ndax nga am lañu la amoon bokk na ca yi nga xam ne sàkku nañ ko ci bis bi gannaaw koor gi mooy bari loo ci tudd yàlla di ci ñaan di ci saraxe yooyu yépp digle woon nañ ko jamono yi nekk waaye bu ja fukki fan yu yii nag da cee gën a feddaliku nag moom ndax la nga cay amee mënoo ko amee ci beneen bis yeneen bis yi nga xam ne moo ci des sunu borom tabaraka wa taala wax na ci alquran ne li yashhadu manafia lahum wa yadkuru smallahi fi ayamin maalumat ala ma razaqahum min bahimati al anam nee na bis yii kat dama ko def bu ajee ba noppi ngir ngeen dem aji gis njariñ ya nga xam ne moo fa nekk ci aj ga waaye ngeen tudd yàlla ci ay bis yu ñu xam borom xam-xam yi nag borom mu fassiroon yépp nee nañ bis yu ñu xam yooyu liñ ci juru mooy fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski kon fa aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid da ngeen ci bari lu ngeen di wax laa ilaha illa allah wax bari lu ngeen di wax allahu akbar bari lu ngeen di wax tahmid sant ci sunu borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu sax na wala sax na ne abu urayra ak ibnu omar sayyidna abdullah ibnu omar ay saxaaba yu màgg lañu woon nee nañ ñoom ngir topp ndigal loolu bu fukki fan yi masaan ñëw dañuy génn dem ci marché ba di ko biral di biral di wax allahu akbar laa ilaha illa allah alhamdu walilahi alhamdu allahu akbar laa ilaha illa allah walilahi alhamdu di ko wax ca kaw nit ñi di leen toppandoo di ko wax ak ñoom ba dëkk bi yépp di riir jamono loolu sunna la woon su amoon soo xam ne dañ ko bàyyi waaye lu am solo la te zikr noonu la noonu la mel amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru sëñ tubaa nee na ab lu mu baril la ca gën mooy tudd yàlla lu mu mën a baril rek la gën ca lu muy baril mooy muy tudd yàlla saa bu nekk loolu tax mu fab tur yàlla yooyu yëpp fab jégalu yëpp fab euh, mboolem ñaan yëpp dugal ko ci biir xaside yi nga xam ne kuy jàng xaside yi yaa ngi zikr yaa ngi ñaan yaa ngi euh, euh, baril baril baril baril tudd yàlla yooyu kon di ci tudd yàlla moom it lu am solo lool la moo xam da nga koy wax allahu akbar la ilaha illallah walilahi alhamdu wala da ngay jàng xasida yi nga xam ne moo làmboo loolu wala ngay jàng alxuraan ndax euh, euh, alxuraan mooy zikr bi gën a màgg zikr bi gën a màgg mooy mooy alxuraan ni ko sëriñ bi waxee ci masalikul jinaan kon di ci bari looy tudd yàlla di ci bari looy ñaan di ci bari looy sarax sarax it moom it jamono yu nekk lañ ko sàkku waaye day gën a feddliku ci bis yi ndax li yonent bi waxoon ne ma min ayamin al amalu saalixu fiha ahabu ila allahi min hadihi al ayam al ashra maanaam jëf ju baax ju ne baax na waaye defal ko yàlla ci bis bii nag bis yii nee moo ko gënal leneen loo ko defal ci yeneen bis yi des kon saraxe ci bis yii jamono yu nekk lañ sàkku sarax waaye ci bis yi nag ci la gën a amee amee solo ama tasadduqu ma al infaaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi fadailu l infaaqi wa tasadduqi kasiratun jiddan ala al muttafaqi loolu sëñ bi moo ko wax ci Masaalikul Jinaan wane ngënee li sarax ak ngënee li joxe sa alal ci yoon yàlla ñaan nag moom naka jekk moom it dañ koy digle ud'uuni astajib lakum wa isa saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daahi isa daan kon yàlla moo ñu ko digal ne ñu dee leen dee leen ma ñaan ndax ku jege laat bu ngeen ma ñaanee ma may leen yonent bi na adduaa u muxul ibada al ibadatu adduaa al ibadatu huwa adduaa wal al ibadatu adduaa afdalu al ibadati adduaa afdalu al ibadati adduaa nee na ñaan mooy muxu eh, jaamu yàlla bu yaamu jaamu yàlla doon nit muxu ga nga xam ne moo ci gën a am solo nee na mooy ñaan daal dellu waxaat ne euh, li gën ci jaamu yàlla yi mooy ñaan afdalul ibadati addu'a cheikhul xadim radiallahu taala anhu feddali ko ne isid du'a yanfau maytan fil qubur fa yanfaul xayya wa yujibul ujur ñaan moom day jëriñ kuy dund jëriñ ku dee ñépp lay jariñ ku ko def rek danga ca am njariñ te da ca am ab yool sarax nag ak ñaan googu ñu waxu nag jamono yu nekk moom it lañ ko sàkku waaye jamono yii ñu toll nii ci bis yii ak ci waxtu yii ci lañ ko gën a sàkku ndax nit ñi gën nañ ko aajowoo ndax ñi ko soxla gën nañoo gën nañ ko soxlawoo gën nañoo ñàkk waaye balaa yi ak tiis yi itam gën naa bari kon ci lañ gën a war a bari tàllal suñu loxo ñaan ko yàlla ak sabab buñ mën a jël nañuy jiital ñaan yàlla ci mu yëkkatil ñu balaa yi yëkkatil ñu euh, natt yi nga xam ne moom lañu moom lay teg euh, nit ñi ñu yëkkati ko tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom tabaraka wa taala ndax amma ma muttarra iza daa bokk na ci liñ sopp ci bis yi itam mooy eh, nag tuural ci deret sunu borom tabaraka wa taala tuur ci deret te yàlla tax muy tabaski bi ñu ci def wa salli li rabbika wanhar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa amala aadamiyun min amalin yowma annahri ahabu ila allah min ihraaqi dam wa innahu la yati yowma alqiyamati bi quruniha wa azlaafiha wa inna dama la yaqa'u min allahi bi makanin qabla an taqa'a min al ardi fa tibu biha nafsa yàlla neen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul lenn lu nit defal yàlla lu ko gënal tuural ko deret ci bis bii mooy bisu tabaski bi nee na lang ca lang ca tuur lang ca tuur loolu yàlla day boole xarma wala béy wa wala la nga la nga la nga deret euh, euh, euh, béjjén yaag weeyaag la ca aju lépp na meloon ba nga koy rey noonu la ko yàlla dekkalee ëllëg lenn lu ca nekk mu def ko ab yool fayee la ko yàlla da koy nangu jëkk boo ko boo boo tegee paaka jëkk deret ji di rot yàlla nangu na yo nangu na ko ba fay la ci yool ba mu la ciy tool ba mu la cay fay kon nag na ngeen ci sell na ngeen ko sellal te def ko ngir yàlla tax loolu nag la muy tekki mooy kon bu ñuy wut tabaski nañ fexe ba mu doon mu mat sëkk mel na mu war a mel ni ko borom xam-xam yi di waxee mat sëkk mel noo xam ne bu ëllëgee bu ñu la koy fay da nga doon bëgg mu mel nu ne kon loola it war nga ko sonnee ci sa kem kàttan te bañ caa eh, njissal te bañ caa puukariwu def ko te yàlla tax donc moom moom mooy la la cay may la la cay may dara beneen ba ci des mooy nag yiñ ci sopp mooy bu bisu tabaski ba jotee ñu dem julli ji tabaski moom it sunna la soo xam ne su fedd ko la yonent bi saxoo ko lool doon digle sax ba ci gone yi nga xam ne ak jigéen yi nga xam ne julli warul leen ci jamono yooyu yonent bi dafa daan wax ne nañ leen génne ñu dem ndax taaru lislaam la mandargam lislaam la moo xam ne foo ay jullit nekk war nañ koo sàmm war nañ koo taaroo dañuy dem ba ne sax fu ay jullit nekk sàggan ba defuñu ko defuñu ca dara mënees na leen caa bugal ci àdduna mënees caa bugal ci alaxira mandarga la it moom julli moom bisu tabaski bi ci sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala mi ñu xéewal xéewal yu bari wa in tauddu nimatallahi laa tuxsuha bokk na ci yooyu yooya matal ñu matal aj aj gi nga xam ne ñay aj ña ngi ko doon def matal nañ ko nag léegi ñuy war sant yàlla ci matal gi ñu matal aj gi waaye ñuy sant yàlla tam ci wërsëg gim gim leen wërsëgalee ak jur ñu mën cee jariñu te yàlla mënoon na def safaan bi jur yi du ñu jariñoo waaye mu def ñu di ko jariñoo kon loolu lépp war nañ cee sant sunu borom tabaraka wa taala wa dakara sma rabbihi fa salla fa salli li rabbika wanhar cheikhul xadim radiallahu taala antu soññu ñu ci moom it ci bisu ci bisu tabaski wane ne bis bu màgg la bis bu tedd la bis bu jara sédd la alhamdulilahi alladi jaal yowma alciid yowma altawsiati waltafrihi walitlaq hada alyowm yowmu alciid li kulli muminin muslimin muslin saciid fashkurullaha taba washkurullaha tabaraka wa taala fashkurullaha tabaraka wa taala fii ala kawnihi sururan li nabihi wa liman yaxtafi fa man chakara allaha tabaraka wa taala fii fa innahu yazfaru bi kulli ma min alxayr yastafi fatlubu fihi min allahi tabaraka wa taala xayra fa inna allaha taala yasrifu ila gayrikum dayra wa tuubu fihi tabaraka wa taala min jumlati isyan fa innahu yaxfiru lakum wa yakufu ila gayrikum sawi tuxyaan muy xutba boo xam ne mboolem li ñu war a def ci bisu tabaski ak mboolem li ñu war a wattandiku ak mboolem li ñu tànnal nee na na ngeen ci def li leen yàlla tànnal te bañ cee def lu mu leen tànnalul li leen yàlla tànnal mooy li ñëw ci alquran li ñëw ci sunna ci ay ibadat ak i aadaat lépp dangeen ko ci def kon loolu daal mooy tabaski ñu war cee sàkku nag sunu borom tabaraka wa taala ci mboolem li nga xam ne diggee ko ci euh, musal ni ci mboolem li nga xam ne tere na ko ci te ñu dollee tàllal suñu loxo tabaraka wa taala ñaan ci bis yu fukkeel bi fukki fukki bis yii ak bisu tabaski bii ñu ñaan ci yàlla mu gën a tàllal fanu suñu kilifa gii gën ko fee yàggal lool wéral ko lool ba lim am ci ay mébét mu mottali ko te ñu ànd ko ak moom yàlla mën na ko te yàlla na ko def wa ma zalika ala allahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu الله أن محمد رسول الله أشهد أن لا الحمد لله الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وسهدت بوجوب ذاته ووحدانيته الأكوان الواحد القهار الذي ليس في ملكه هام alqaaim addaim albaaqi wa kullu sheyin siwaahu faan naxmaduhu taala wa naskuruhu ala ma lahu alayna min sunuufi alixsaan wa nastaciinuhu subhaanahu wa nastagfiruhu min kulli zanbin camilnaahu an camdin أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأشرف بني آدم أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار مطيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قعود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في غفلة في, غف في الغفلة رقود في نوم الغفلة رقود فتأهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال والتعظيم وأخلفوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العصر الأوائل منه fa innaha afdalu ayaami dunya bi asriha masxuunatun bilxayraati walfadail faacmuruuha bi taatillah fa inna dalika min ahzami alwasail wa axraja muslimun an ummi salamata radiallahu anhuma anna rasula allahi sal allahu alayhi wa sallam qaal إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض nafaani llahu wa iyaakum bil aayaati wa zikri al hakim الحمد لله كما ينبغي بجلاله والشكر له على ما أولانا من سابق إفضاله ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مدى بكور الدهر وآثاره أما بعد فيا عباد الله روى الترمذي وابن ماجه والبلحقي عن abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ma min ayaamin ahabba ila llahi an yuta'abbada lahu fiha min ayaami asri zilhijja baada siyaami ramadana kulla yawmin huwa kulla yawmin minha bi siyaami sana wa qiyaamu kulli laylatin minha wa qiyaamu kulli laylatin minha bi qiyaami laylatil qadri wa an ibni abbaas radiyallahu anhu qaala anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala maa min ayyaamin afdala inda llaahi al-amalu fiihinna ahabbu ilaa llaahi azza wa jalla min haazihil ayyaam yaani al asra fa aksiru fihinna min altahlili waltakbir wa zikrillah wa inna siyaama yawmin minha yacdilu siyaama sanatin walcamalu fihinna yudaacafu bi tiscimiati diif bi sabcimiati diif وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده سابقوا عباد الله إلى هذه الخيرات وأكثروا من الدعاء يوم عرفة wa inna duaa fihi maziyatun axraja alimaamu malik fi lmuwatta anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal afdalu duaai yowma arafata afdalu duaai yowmi arafata wa afdalu maa qaalahu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yaxfirullahu li wa lakum wa li jamiil muslimin amin <clears throat> أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا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 موسى على اليقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت suñu allahu akbar allah ولديك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا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 ثم إن علينا حسابهم الله الله assalaamu aleykum ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته